dañu nekk ci wàll gi nga xam ne mooy wàllu social moo tax ñu sos kuréel goo xam ne benn ONG bu ñuy wax la nouvelle solidarité africaine man maay président fondateur bi dañ ko sos ndax ay fànn yu bari yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci suñu waajur yi ki nga xam ne mooy sama référence di sëñ Baara Mbàkke moom Serigne Touba euh, lu bari ci ak dundam mu jëmale woon ko ci dimbale doomu aadama yi ak ki nga xam ne moom lañ ma tuddee muy sëñ Abdou Khadir di doomi sëriñ Touba ñuy sant yàlla ba bokk ci ñi nga xam ne doomi Serigne Touba yi ñoo leen yar ndax bi ma amee juróom-ñaari at lañ ma ko jox ñu am lu ñu gis ci moom ci lu mel noonu. ndax sëñ baara daf daan dimbale nit ñi ci seen wàllu wér-gi-yaram da daan def bu nawet jotee àll bi daana am ay jafe-jafe ci ay feebar yu bees yu dugg si day wër àll bi di nemmeeku nit ñi di bind ci seen tànk yi ak seen ginnaaw yi bu bindee ci sa tànk yàlla day na def dina dogal nga fekk déwén doo dee ci at mi bu bindee ci sa ginnaaw yàlla dina dogal feebar bu xew du la dal loolu nag ñu nekk ay sëtam rafeere wu ci loolu ba tax na ñu sos kuréel gi nga xam ne mooy ONG boobu di la nouvelle solidarité euh, africaine di ONG international ñu ciy liggéey ci wàllu santé ak ci wàllu éducation ci sëriñ Abdou Khadir moomu ma tudd léegi di doomi Seexul Xadim moom itam ñu jàng ci moom loolu ndax dañ daan gis nit ñi buñ daan ñëw di ko siyaare si dina am ño xam ni dañuy indi ordonnance yo xam ni daana mat at wala ñaari at yu yu jeex yu yag waye boko ko joxe duko delo du delo ordonnance ak lu mu yag yag ñuy gis lolu diko dundu moñu may ñu dugg ci walu gogu xam man nañ tee liggéeyal suñu borom ak it jamono ji ni mu mel ci walu social ci aw nekkine ci gis ngeen lu bari ci actualité bi ñuy wax ci walum homosexualité ci lolu melokanu jamono ak yàquwaay bi motax lolu am motax suñu ong bi ñu fassiyene jappalé xalé yi formé len éduquer len bañu man seen bop ba duñ dugg ci pièce yoyu ndax jamono bi dafa ubbeeku ci ay walu yu bari yaangi dégg mondialisation yaa ngi dégg tamit euh, lu mel ne euh, bunt yu bari yoo xam ne nii euh, borom dool yi ubbi nañ ko ngir surxal ci ndaw ñi ba nga xam ne boo xoolee seen colin mooy tax lu bari di soppeeku ci ñoom ba dootuñu am kersa ngir di jaat yenn yenn yoon yi ndax bu ñu leen tegalee lu mel ne modd ci seen kanam aw colin goo xam ne kenn xamul lu muy nuru Euh, euh, ba daanaka mag ñi sax boo seetloo ñu ngi koy sol euh, nga gis ñu leen di won parité ne góor ak jigéen ñoo yem nga xam ne ci wàll ci modd boobu lañ koy jaarale fexe ba col gi doo ko xàmmee solug jigéen ak solu góor ca pourtant loolu ñu leen di gëmloo ne leen góor ak jigéen ñoo yem muy lu mel ni parité boo ñëwee ci langue française nga jël fukki jigéen nga jël benn góor dugal ci seen biir jigéen ji duutuñu feeñ benn góor bi rek mooy compter yóbbaale jigéen ñëpp kon ñoom ci seen langue nanguwuñu ko waaye ci seeni doxalin nangu nañ ko ndax bëgg a sànq ndaw ñi loolu nag ñooñu moo ñu may ñu taxawal kuréel gu mel noonu ngir fexe ba ba euh, fekk si leen xale yi ci foofu ñu nekk ngir mën leen a euh, jàppale mën leen a won li nga xam ne nii mooy mooy dëgg-dëgg yi ñu tedd ñi mag ñi ku ci mel ni Cheikhul Khadim